fi wax ne vraiment ay problème ci car bi ak yoy yooyu bobu dama koy takalé ak euh, question Modou Ndour Assane Sène c'est Assane hein Assane Sène transport oui Assane Sène voilà gars yi xam nga njaboot ji dafa yaatu ni ñuy def ni on n'est pas tenu de le faire c'est pas une obligation ce n'est pas une obligation de vous déplacer de vous donner des per diem maanaam du loo xam ne forcé la ñu jox leen ñu paasal leen dañoo luy bus jox Babacar Ndoye loolu ne ko gérer ñu ne joxe accréditation yi trente laa ko xoon trente accréditation mu ñëwaat mu ne ma président est-ce que doo ñëw ba trente cinq trois jours avant mu ñëw ba doo dooli cinq muy quarante ma ne ko allez-y Babacar a des accréditations yéen war a inscrire foofu bus bi ñëw taxaw mu départ ñëw fii balaa moo ñëw bus bi balaa moo ñëw fii Babacar coordonné ak ñëpp ñu ut dalukaay ñu dalukaay ne presse bu ñëwee fii lañ koy dalal presse bi ñëw nag fañ waxoon jox nañ leen ko yëkkati yëkkati huit cent mille francs jox ko Babacar Noël ne joxal presse bi ku nekk organe nga fi représenté ku nekk sa organe fa lay def dafa def feuille de route ou bien ordre de mission nga dem mu jox la xaalis paas ak lépp CNG ne nañ jàppale gars yi bu ñu ci coono naree fekk nag ñu soppi doxal parce que li ngeen posé ak ni ko posé dem nga beneen su doon sa doom ndax est ce que c' pas discipliné je regrette loolu du yar du teggin man sama doom dama ko yar su ko mettre en route xam naa ngay wàcc soo fa wàccee lii ngay def te dinaa ko yebal boo demee del muñ del muñ loolu mooy teraanga sénégalaise waaye naan kenn tertuwunu amul ndox kenn lekkul mais vous ne travaillez pas pour nous kii moo ñuy liggéeyal Malick Samb kii ñun lay liggéeyal te xamul leen naka la ñëwee da ko jox nañ ko paas moo ngi ni dañu muy jaxasoo ak yéen gis nga ànd dañ koy rafetal suñu day yàqu ay yenn commentaire yi xam nga bul jóg rek ne damay jël comportement révolutionnaire ak yooyu ñun dañoo jaar fi ngeen jaar nous nous avons fait une formation en communication en technique de communication ñun duñ ko defal suñu bopp ñun dañuy jóge tukki dem di poire ci ci aéroport yi est ce que nañ wax naan wooye lii ak laa duñ ko def parce que jar nanyu, nany nañ moytu yenn wax yi mbedd yi ñu dañoo bëgg accompagnement bi ñu waxoon ca départ ñu ànd rek mu di rafetal lépp nag mais bëgguñu ñi jaar nañ naan wëy dañoo ñëw fi defuñu bu ngeen nekkee secteur man parce que démb fa ma fa ma nekk mais ndox ñëwul ñun dafa amoon paan région bii da ngay indi cinq mbër yu mag ak cinq accompagnateurs parmi lesquels c'est le président mooy ñëw entraîneur bi ak euh, comment s'appelle encore ak directeur régional bi ñu ne président bi nag jëlee yeneen ñaar yulen neex ñu bok ci 5 yoyu bu ñe ñu de 10 Mais do ils naan on 5 beur ñaari accompagnateur wala ñet xam nga bëgguñ dugg ci lolu et pour la courte histoire il y a 15 ans ñun eu ñëw fi à saint louis j'étais président de serge de kaoula mais biñu ñëw fi amna mbur mo fa indi na 17 accompagnateurs. 17 17 accompagnateurs, minicar la jël indi fi bobu rek duñ ci kenn il a 17 accompagnateurs

ak présence bi dafa il faut aller vite il y a premier appel deuxième appel troisième appel c'est la disqualification après il faut que nous jéem le lëkkaloo ak vraiment le texte et règlement Manga tu veux ajouter quelque chose. oui merci même tuuti même tuuti. lu simple. Euh, merci beaucoup ci question Nous ngeen ko xam ne ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ñun traditionnel dans tous les villages environnants dañuy doon dox suñu temps wër bi dem bëri ji di bëri ay

la plume étant non traditionnelle am ko oh, je reviens sur le question de bi poser question en série. je pense que l'unité def dañ ko région non seulement faire faire développer faire évoluer des gens évoluer nañ seen caméra yi dafa éloigné bu njëkk ba am na làmb bu toj kii ñëw ne fii laa toog te am ku ko jiitu fu mu toog bi làmb ci tojee foofu loolu ñaanal ñu ko yàlla man wóor na leen làmb jilaas toj naa ko te doxee Fatou ba jilaas joof yor loolu ñaanal ñu ko parce que ëpp la ñu esprit yooyu changé na donc suñu jaaree ci yooyu yëpp. xam gàllankoor yooyu yëpp suñ ko defarul ñu ngoo ko bi ñu ñëwee fi ñu làng mbër bi day wax ne rawaan bi fii la rawaan bi génn na fii la toog na bi ay trois heures rawaan bi génn na dépassé nañu esprit yooyu c'est pourquoi ñu woo région yi yëpp ku nekk jël fu ko neex ñu defal la fu mu kii cumukaay yaa ngi wax ne euh, nit ci gis ñu cumukaay nit ci gis cumukaay

dans un moment yoo xam ne fa camion mo ñëw di may donc pourquoi pas pour une journée comme par exemple on le nga mu ko euh, xet bu CNG je suis désolé. merci donc je vous remercie. Euh, président parce que